gaay maa ngi leen di ziar leen di nuyu bu baax a baax a baax dooru jóge nii pari leen di ziar bu baax a baax ku dugg partage ah euh, xaar leen ma am ñu ma yónnee également ay ay message baal leen ma ma am ñu ma yónnee message ah. waa service d'hygiène xaar ma woo waa service d'hygiène gars yi maa ngi leen di ziara ku dugg partagé ku dugg partagé ma ne ko ku partagé ku dugg partagé ah gars yi ku dugg partagé maa ngi jégalu ah <laughs> tey moom mooy loolu tey ah sama gars yi dafa mel ni dañuy préparer tabaski bi gisuma gisuma sama gars yi tey maa ngi leen di ziar bu baax ku dugg partagé ma ne ko ku duggu partagé ku dugg partagé en sama gars yi di dugg may leen ma ma dugg euh, ñamal leen tuuti euh, vraiment tey moom wuu tey moom tey moom je suis tey à la bourre carrément carrément carrément alors gars yi ma teg affaire yi voilà. ku dugg partagé ah ku dugg partagé ndax tey moom tey moom tey moom tey moom live bi tey euh, mënu moon tey ñàkk a dugg live sonn naa lool mais tey foog ma duggu live mhm. il le faut di ngeen comprendre lu tax alors may la ma tuuti rek ma ñu déglugum euh, bëgg bàyyi en attendant parce que tey dugg ci live bi donc ma jël juste bëgg bàyyi en attendant parce que def na benn euh, live bu am solo donc euh, def na live bu am solo ci Ahmed Khalifa Niass mi ñuy caxat-caxatee may leen ma tuuti rek xamutuma nekk ban la defe naa bii la gars yi may leen ma tuuti en attendant sama gaa yi di yegg si ah. dëgg la bu diggu bëccëg heures la gaare fii dugg am na beneen appartement ci biir kër gi fu muy ab Casamance waxtu. waaw yi dugg la leen kër yi may leen kër yi. yow rek ma doy bu dee dañuy wax wax ji ci lay jaar bu dul loolu wóoluwuma keneen. ok dégg ngeen bi Ahmed Khalifa Niass moo wax lii nee na Sonko. ñëwoon na fa boobu média bi yëpp yëgoon nañ ko mooy première ñëwam bi gars yi maye leen kër yi parce que ay doomu aaraam lañ si après sama pare ñuy def boppu maire ñoom ñëpp laay bloqué dégg ngeen nee na Ousmane Sonko ñëwoon na fa ba ñëwee këram boobu média bi yëpp fekkee nañ ko mais deuxième fois bi fa Ousmane Sonko ñëwee moom kenn tund moo ñëw gaare otoom bëccëgu ndar kam dugg ci néegam moom Ahmed Khalifa Niass na ko dimbale ma sama diggante ak Macky Sall kon yéen ñi nekk fii di coow yéen ñi fi nekk di coow naan Sonko dafa am fitt Sonko day dëggal boppam dama bëgg ngeen def attention bu baax a baax a baax parce que yéen dañ leen nar a sacrifice te xamul leen ko parce que Sonko moo gën a xam lim def. parce que su amee sañ-sañu yolleeku ndank dem kër Ahmed Khalifa Niass naan Ahmed Khalifa Niass dimbali ma ngir yàlla sama diggante ak Macky Sall kun xam nga ne Sonko jubut ku nu xam nga ne nekkul ci dëgg parce que ku nekk ci dëgg est-ce que dana yolleeku di dem di ñaan njëkk di ñaan ndimbal parce que Ahmed Khalifa Niass xam ngeen ko moom du nëbbu dara moom lu mu ragal a wax toog fay jooy c'est clair waaw moom lépp luy nit di wax ak moom na leer man ànduma ak Ahmed Khalifa Niass tax xam ngeen ne dama koy critiquer ci yu bari yu bari su ko defee damay taxaw dal ci kawam mais nag am na loo xam ne su ko defee damay taxaw ma séddeel ko moom Ahmed Khalifa Niass li mu wax parce que Ahmed Khalifa Niass képp ku ko xam-xam ne amul mbindeef bu muy ragal ci kaw suuf ba tax moom li mu bëgg a wax du ko wax moom Ahmed Khalifa Niass gis naa nag su ngeen demee ci commentaire yi nga xam ne mooy vidéo Ahmed xalifa bi ñoom robeelu son gars yi may leen kër may leen kër yi gars yi xam nga su ngeen demee ci robeelu sonko yi ñu ngi koy saaga di naan ko traître nga gëmoo dara te barki Demba Ndiaye sonko moo toog ak Ahmed Khalifa Niass di ko tagg te tagg bi mu tagg Ahmed Khalifa Niass moom sonko mosu koo tagg mbindeef ci kaw suuf man mosuma dégg Sonko tagg nit Ahmed Khalifa Niass laa gis mu tagg ko tagg boo xam ne amul fenn kun Ahmed Khalifa Niass moo wax ñu dégg vidéo bi tag naa ko du lu bëgg a bàyyi du lu ma bu ma teg la ñëpp dégg ko ndoor ñëpp dégg ko Ahmed Khalifa moo wax ñëpp dégg Sonko yolleeku na ñëw këram na ko dimbali ma ngir yàlla ci Macky Sall pour mu bàyyi dossier bi teg ko ci suuf kon Sonko xam na li nekk ci dossier bi kon yéen ñii di mbel mbeli di tëb di dal di fétteeku di saaga nit ñi yéen a xamul li xew mais barke Rasulullah Sonko xam na li xew gis ngeen bëgg a bàyyi du waxantu man du ma waxantu man duma ànd ak nit ci ak naafiq du ma ànd ak nit ci ay manipulation du ma ànd ak nit ci ay naxaate man ba ma demee ba xam na Sonko mii manipulateur la fenkat la warkatu askan la du nit ku baax damaa rocceeku ndànk dellu ginnaaw ba pare di ko dénoncer di leen wax li nekk ci biir am na ñu nangoo dégg nag waaye am na ñu nangu tëdd dégg te dem leen ba ci kanam lépp dana leer dégg ngeen li fa Khalifa Niass wax leer na nañ ni kon Sonko xam na ne moo nekkul ci dëgg xam nga ne Sonko bis bu demee tribunal day tëdd kaso moom xam na ko bis buñ ko wooyee day tëdd parce que dafa am ay saagakatam ak ay waxkatam yoo xam ne dañoo nekk ci réseaux sociaux ci rajo yeeg tele yi lépp lu Sonko def ci ñaawteef ñi setal ko ragg ko xam nga li sa xelu nit ñi atte ko setal ko def ko benn yonantu te loolu dafa yomb torop loolu dafa yomb torop waaw gis ngeen wal fajari yi ngeen di déglu muy setal Sonko saa su nekk di campagnal Sonko mm-hmm. lépp lu mu leen wax ay fen la Sonko xam na lim def booy di nekk ci réseaux sociaux yi tamit xoolal lu Sonko def ñu génn setal ko def ay affaire yooyu mais lépp dana leer incha allah ci kàttanu yàlla. dégg ngeen bu baax a baax de dégg ngeen bu baax tey nag mun ngeen saaga Ahmed Khalifa ñas mun ngeen ko saaga tey waaye démb de tàggoon ngeen ko. billaahi yàggu dara matul sax matul sax 4 mois matul sax 3 mois ba ngeen ko fi tag Sonko tagg na ko fi. robelu Sonko yëpp commentaire soo demee yow patriote nga yow ku gëm Sénégal loolu da lañ doon bindal Ahmed Khalifa mais tey soo demee ci commentaire Ahmed Khalifa ñu ngi koy saaga saaga bu nekk lii moo leen di wan ne yéen xamul sax fu ngeen jëm gis nga Sonko xam nga ban nit laa koy misaale mooy seret bu takk ñeent fas moom lay misaale sonk Sonko fi mu jëm exact sax xamu ko Sonko xamul gauche la jëm xamul droite la jëm xamul ginnaaw la jëm xamul kanam la jëm bu caa mujjee ko topp wax ni saxdaan ay wax ni teg salaire mu nekk wax soxla lu ñu nekkee mais loolu na xamal li wax ni ko ñoo ko tegu ko ci yoon ñoom ñu ngi saboot donc kooku moom moo doon bëgg baay dina ñëw ci euh, biir waxtaan bi euh, le temps que ma bind sama sommaire et tout gars yi ma nuyuwaat leen bu baax a baax a baax a euh, jox leen sommaire bi wax leen tey waxtaan bi nan lay tëddee Euh, euh, donc gars yi ginnaaw bu ma leen encore une fois nuyuwaatee tey euh, ñu ngi waajal tabaski bi et tout ma jógee tukki ndax man su may dem Paris presque tukki la ndax fa sori sonn lool maa ngi door a yegg si y a même pas trente minutes mais foog ma tontu capitaine Touré capitaine Touré foog ma tontu la ndax defe naa ne yow war naa la mot wax pas yaay sax mais maa la mag capitaine Touré. yow ku ma yàpp nga capitaine Touré dinaa ko tontu. tey bu fekkoon na sa droit de réponse nga soxla avec plaisir da ngay dugg ci live bi. Mhm. off the record sax li ma la war a wax ci live bi ma wax la ko off the record ndax sénégalais nga avant tout. kon yow capitaine Touré dinaa la tontu dinaa Seck nag moom tontu na la ci article am ba pare kon yaa def noonu sorti noonu ba toog noonu. yaa wax noonu ci journalisme noonu ba toog noonu yaa wax noonu yaa toog noonu rek ba jox ñu ba jox ñu noonu rek say maanaam euh, ay ay. ay conseils ci journalisme Sénégal moo neex Sénégal léegi ñu warut a wax ay wax ku nekk da ngay wax ci ay domaine loo xam ne du sa domaine ku nekk euh, rëy làmmiñ gars yi def leen ay kër parce que ñu ngi def bopp mer pour yàq live bi def leen ay cœur s'il vous plaît tey euh, capitaine Touré dinaa la tontu calmement euh, sans yëkkati baat neex rien ba vraiment di ko def tempo tempo wax ak yow de manière très sérieuse nag donc su ma tontoo capitaine Touré euh, balaa capitaine Touré juste benn benn parenthèse bu ndaw ci Covid 19 bi gis ngeen la recrudescence euh, euh, donc du coronavirus fële ca Sénégal ak cas yi nu mu commencé di jéggi dayoo fële ca Sénégal su ko defee aussi bëgg baay bu ñu waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy objet wu vidéo bi ma teg extrait ñu wax également moom it xalaatam parce que mi ngi Sénégal ci mbirum Covid 19 bi suñ ci jógee laaloon naa dimanche passé ci mbirum foncier ba ca Sénégal euh, rawatina euh, bandi filao euh, ñu daal di ci tudd ni nga xamante ne ñoom ñooy waa syndicat impôt et domaine waa CADAS aussi ton tuddu nañ leen ci mais surtout waa impôt et domaine pourquoi impôt et domaine parce que impôt et domaine aussi danaa ñëw ci kaawu Mamour Diallo 94 milliards yi dinaa ci ñëw bros ci mais dinañ ci gën a xuusaat ndaxte bi ñu toogee ci ci ci xeex bi ak ni ñu ma def def ko ñeneen dañu toog ñun may def rétrospective di xool lu bare bare bare bare ma xam ne bëgg bàyyi li muy wax ci vidéo mi yu bare bare lu am solo la parce que boo nekkee ak ñoom ñu wër la euh, c'est extraordinaire mënoo ko expliquer sénégalais ces gens c'est des baratineurs en chef ces gens ils sont très forts dans la manipulation bu dee ñoom kese ngay nekk ñoom ñoo la wër ñoom ngay waxtaanal euh, tey 94 milliards milliards yi ba ma dégloo audio bi nga xamante ne ni une partie de la famille euh, euh, ci coow li euh, nekk ak Ousmane Sonko mu nekk une preuve comme quoi moom Ousmane Sonko ci coow ci 94 milliards war nañ ko ca cëral bu yëkkatee coow la ba mu am ca ndam moom moom war nañ ko caa cëral presque ay 12 milliards en tout cas ay milliards une dizaine de milliards kon maanaam coow li defu ko pour le peuple sénégalais defu ko pour des citoyens sénégalais daf ko def également pour moom ndax war nañ ko ci cëral mais man ba ma dégloo audio ba man dégg euh, euh, gisuma woon loolu maa ngi naan ne audio bi amul dara lu garaaw amul dara lu garaaw waxu ci dara lu garaaw ah il a son cabinet gars yi dàkk nañ ko ci impôt domaine il doit vivre également de son métier mais avec le recul je me suis dit il est député il a parlé ci affaire 94 milliards yi Euh, euh, euh, def na conférence ay conférence de presse ci turu moom député député du peuple moom mi nga xamante ne nii moom mooy lu Thomas Sankara sénégalais kon defu ko ci turu cabinetem parce que bu fekkoon ne cabinetem dafa am ay client mu war a leen mu war leen conseiller et tout cela jarul mu ñëw di porte presse jaru muy porte presse daf leen di conseiller gars yi jëfee ko ba ñu am ndam mais dafa jël porte combat bi daal di porte presse en tant que député te day faytal le Sénégal kon il a mais loolu mun moo koon xam y a quelques années de cela parce que ñoom rek ñoo ma wóoroon ñoom rek ñoom rek ñoo doon nekk di wiw mbiw bu ci sama ci nopp yi dañ koy def tempo tempo rek tempo tempo gars yi partagé leen live bi waaye partagé leen live bi Euh, kii na ne El Hadj Souane euh, El danga may envoyé euh, message ci messenger c'est vrai que gëj naa lire na ay message messenger y a trop trop trop de messages sinon ma jox la également numéro whatsapp bi léegi léegi nga yónnee ma message ci whatsapp bi voilà comme ça ci ak whatsapp bi nga bàyyil ma message écrit wala audio su ko defee man ma kóol la mais dinañ ci def ay waxtaan 94 milliards yi Mamour Diallo def na une sortie moom it ndeysaan dinañ ci ñëw bu ci kanamee léegi du ma ko caxat caxatee dama la jox juste sommaire balaa sama yaram di tàng kon. Euh, syndicat impôt et domaine euh, war ngeen génn nag waxaat nit ñi ndax nit ñi luñ leen di tuumaal bari na. syndicat yi en général société yi dañuy ut ay coopérative di lijjanti ay terrain pour seeni membre waaye syndicat impôt et domaine ñaata ngeen ñaata membre ngeen yéen ñaata ay hectare ñaata terrain ngeen am ci biir ndakaaru ndakaaru rek diggante Mamel Almadi 2 Foire fu ne aéroport fu ne am ngeen fa ay terrain géejawaay nag dinaa la dugal waa géejawaay tey waa géejawaay tey ñi ma waxtaanal dinañu waxtaan ngeen dégg li ma leen di wax ne mbir mu sérieux la ndax nee nañu lii duñu ko bàyyee noonu bu ñu ñu ne autorité bu ñu gëmmee seen seen bët ci lii dara dina tuur bii géejawaay lu leer laa leen wax waa si waa waa impôt et domaine syndicat impôt et domaine am ngeen kaa lii war ngeen cee wax nee nañ caxat-caxatee bi ngeen di caxat-caxatee terrain yi gars yi dem nañ ba ma dañu ma wax ma ne leen nag fexe leen aussi ngeen génnee preuve yi nee nañ xam nañ ne terrain yu bari da ngeen koy jaay te minimum vingt millions la terrain bu nekk kon maanaam yéen da ngeen transformé wu rek nekk seen société immobilière kon wax leen ñu ñaata membre ngeen ba fu nekk ca Sénégal fu nekk ca Ndakaaru kese ñaata terrain ngeen am ñaata hectare ngeen am ci benn syndicat ñaata membre ngeen am te nit ñi xam nañ ne syndicat des impôts et domaines égal Pastef waxoon naa ko dimanche dama koy làbbaliwaat syndicat des impôts et domaines égal Pastef yéen ñi bëgg a changer système bi yi ñi nekk anti système ah Ousmane Sonko nga ca woon ci seen biir de te bu bu mu génnee ñu bari dañu ñoo ànd ak moom ngeen daal di taxawal Pastef quatre 99 pour cent ña fa nekk ñëpp ñu ngi biir Pastef nii yéen a bëgg changé système bi nii ngeen di def nag homme d'affaires yi dee nañ ma ko dinaa ko wax deal bi dinaa ko toj tey <laughs> tey sérieusement rek moo tax tey sonn naa loolu tey foog ñu live gars yi partagé leen live bi ngir yàlla ak bi ta partagé leen ko nag ndax ñoom ci seen bopp damaa bëgg ñu dégg ko nag tey sax nag dama bëgg tey ngeen dégg ma kon tey bu ñu ñëwee euh, tey ci mbirum waa euh, foncier ca géejawaay ma tarxiis tuuti nag wax ci waa impôt et domaine waa syndicat impôt et domaine maanaam Pastef waa ak ni ngeen di caxat ni ngeen di def ak homme d'affaires yi deal bi dinañ ko xawat dinañ ko tëj dinañ ko toj tey bu ñëwee ci loolu nag capitaine Touré ñu waxtaan également ci capitaine Touré suñuy invité moom mooy Khalifa Gueye Khalifa Gueye c'est le président départemental du conseil de la jeunesse de Guédiawaye Euh, euh, dinañ jël également ki nga xamante ne ni moom mooy Amady Diallo président du collectif départemental des délégués de quartier de Guédiawaye donc ñoom ñaar ñëpp ay membres lañ ci collectif taxaw tem aar sa gox may nuyu na bu baax a baax a baax également euh, ki nga xamante ne nii moom mooy ngaraaf waaw mi ngi foofu ca Guédiawaye ndeysaan nee na mosa naa ko interview yàgg na interview bi yàgg na ca jamono ya ma nekk reporter Walfadjri kon nag gars yi pour coow li nga xam ne moom laa leen di wax tey jii Euh, dañu taxawal benn euh, euh, collectif bu ñu ooy taxaw tem aar sa gox ñoom nag ñoo porte combat bi mooy foncier ba ca géejawaay bëgguñu kuñ ku caxat-caxatee seeni terrain foofa ca géejawaay te dinañ xeex xeex bi kon gars yi d'abord lu nga xamante ne ni moom mooy lu jëm ci covid 19 bi rapidement rek gars yi bu leen nangooti politiciens yi lépp lu ñëw rek gars yi jël ko def ko mbirum politique lépp lu ñëw rek ñu politiser ko gars yi nañu waxante dëgg muy pouvoir comme opposition même citoyens yi ñëpp a ci am responsabilité recrudescence cas cas euh, euh, euh, cas yi ndax lan Macky Sall def na tournée mais opposition bi aussi dem nañ dem dem nañ ci ci citoyens yi 23 juin gis nañ au pouvoir ba et ses alliés def nañ rassemblement mais opposition bi aussi def nañ seen rassemblement di ñëpp ko fi ñëpp ko seedee loolu dëgg la ou bien ou bien du dëgg pouvoir comme opposition ñoom ñëpp ku ci ne am nga ci sa responsa sa part de responsabilité citoyens yi am na ci seen part de responsabilité na démboo ba démboo démb samedi samedi l'artiste Taïsi dafa loolu ko xale yi di tuddee c'est un artiste français jóge fii France dem ba Sénégal def fa benn concert ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi mu fees dell kenn takku ca sa masque kenn takku ca sa masque kon citoyen am nañ seen part de responsabilité kon nag encore une fois gars yi nañu bàyyi lu xew rek ñu ne dañ koy politiser du dëgg du yoon opposition bi da ngeen di wàcc ngeen xeex ak Macky Sall jàmmaloo ak moom mu saf sàpp ci mbirum politique de manière juste de manière juste dootuñu nangooti ku ñu jël en otage ñun la peuple sénégalais. du opposition bi ñëpp nag ñu ci gën a rëy laam te nekk ci réseaux sociaux yi xam ngeen leen kon nag sama sama sama sama li ma gën a yàkkamti ci laaj bi mooy capitaine Touré. capitaine Touré man nag euh, lépp lu xeetoo ak waa Ousmane ko wax dëgg neex yàlla euh, benn parenthèse la moo tax ku may woo naan ma du courage du courage daf ma xaw a jaaxal. man muy ñi nga xamante ne ñoo nekk waa Ousmane Sonko xajam la rakaay la kii dans les ci dans les réseaux sociaux duma ci liir kenn duma ci seetaan kenn depuis le mois de mars sama benn mbokk sama benn xarit oowatuma naan ma di gis nga lañ la vidéo wala lañ la waxal jamais samay xarit ñi ma sës rëkk xoolatuñu leen lijjanteetuñu leen donc lépp lu ñu wax ak lañu def man yëguma tiiñuma gisuma maa ngi dund sama dund normal kon amul dara loo xamante ne ni changé na ci sama àdduna moo tax amul dara lu ma métti déedéet mais pour le principe moo tax may xeex ndax ni ngeen ko defee moo ñaaw duma leen liir duma leen déglu samay nit duñu leen déglu duñu leen duñu ñëw ba rapporter ma quoi que ce soit mais bu amee solo comme nag yu mel nii capitaine Touré comme moom la ñu doon waxtaanee dimanche ah dañoo ma résumer la mu wax aw ma jotu di la liir yow capitaine Touré. yow sa bopp sax dama laa talatu ñun talatuñu la dangaa bës ba pare talatuñu la ñu ngi ci leneen ñun Sonko la ñuy yëlëb nii parce que moo bëgg a dugg palais foog ñu xam moom il est kii balaa ñu balaa ko Sénégal di ko dëgg Sénégal suñ suñu suñu réew mi ñu kooku lañu ñu tal taluñu la. bës nga ba pare capitaine Touré yërëma sa bopp nga tal sa bopp xale bu ndaw nga amoon carrière nga topp politicien yi topp politique te boo amoon ay mbokk dëgg ak de vrai conseil li nga def doo ko def politique jaru ko politique yenn politiciens yi jaruñu ko tu es jeune nga am encore une fois sa carrière am famille li may wax ni dafa am fu leer fi ma ko teg Ousmane Sonko gëmul ku dul Ousmane Sonko bëggul ku dul Ousmane Sonko lijjantewul kenn intérêt dong xam naa nag après dañ daw nag lijjanti ko neexal ko ak yëpp wala ndax est-ce que ñu ngi lay cotiser comme léegi yelwaan moom moo xew ñu ngi lay cotiser yow capitaine Touré dama laa xool ba nga defee sa vidéo ne yaa ngi Touba te fekk du dëgg dama la xool ba mu yàgg ma ne kii j'ai l'impression qu'il est perturbé ku la xool de on a l'impression que tu es quelqu'un de très perturbé Sénégal nag fulaalu ñu ay mbirum psychologue waaye yow ku war a dem xooli psychologue la je te le dis vraiment parce que tey bu fekkoon ne tey woote wante nañ xam nga parce que officiellement bokkoo Pastef je pense mais ni nga doxalee am na yu bëri yoo xam ne ci àdduna réere nga ko mbir dese nga xam milieu politique dese nga xam milieu média milieu bu dangereux la milieu de caïman la nit ñi ils sont pas toujours ce qu'on croit ne moom moom lañu nit ñi seen intérêt rek bu ñu paree ci yow sanni la kuy waxati say wax man à passé dinaa sekk ba mu ma génnelee tegal ma ma déglu seetaan vidéo am SMS yi teg lu leer moo tax ma jëlaat ko waaye yow kenn lijjanteetu la yàq nga sa carrière tey instant bi war nga toog nga xalaat naka ngay def pour nga rebondir yow capitaine Touré waroon nga toog nga xalaat naka ngay rebondir ndax yenn encore une fois yenn politiciens yi jaruñu ko. capitaine Touré nga ne yow danga ñuy jox leçon ay leçon de ay ay de journalisme quoi capitaine Touré man mot naa la motuma yaaya ah, wara wan naa la mot tant damaa ndaw rek ne si pax waaye mala la am lu bari lu ma dund j'ai toujours été une vraie révoltée kon dafa am erreur yu ma def yoo xam ne yow dafa mel ni moom nga nekk di def bu la kenn jaral sa carrière ak sa famille ndax ñoom jaruñu ko ñun ba ñuy nekk ci terrain bi dañoo jàngi ba pare nekk ci terrain bi tarbiyu ko on a risqué notre vie lu bëri yëgu leen ko ndax suñu métier ñun bokkuñu ak la nouvelle génération en capitaine Touré lañu nekk ci réseaux sociaux yi ndax justement bañkat lañu moo tax ñu nekk ci réseaux sociaux yi te duñ ci nekk ak vitam aeternam balaa ñuy dee bëgg nañ taxawal dara Sénégal ñu xam ne matikat ci turu jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi ci wàllu politique wala ci wàllu média wala ci milieu boo mun ci bokk nga nekk jigéen di bañkat ñu lay tegal ay obstacle ay ndigg sërëx nga tey sa intégrité ak say principe même buy jël vingt ans trente ans nga toog nga muñ ko ba yàlla may la ko su boobaa jigéen yooyu incha allah bi ñoom lay sagal yow tuuti nga pour di ma jox ay leçons de journalisme Seydina Seck na dina dina tontul boppam ne dégg naa yee yaay dañ ma résumel nii on a fait preuve de légèreté yow yaa def preuve de légèreté ci sa carrière ma ja ma jox la tuuti rek am na yoo xam ne di waxu du waxu du waxu live gis nga ñun suñu nekkee ci benn dossier bu bu sensible par exemple tey euh, dimanche passé maa ngi doon dugg ci benn gamme boo xam ne bu ngeen fàttalikoo nee naa est-ce que war naa wax parce que boobu ma je pensais à protéger ma source bëgg a génne information wax loo xam ne wala pour convaincre wala wax loo xam ne pour nit ñi xam ne yor information jarul nga sànq sa sa ñun suñuy milliards mooy suñuy source Seydina Seck am na détail yoo bëri yoo xam ne joxu ko joxewu ko pour protégé moom suuf sa ndax bu yenn bu ko joxe ñu xam fan la tibbee man ba ma nee Ousmane Sonko yàgg na dem ci ay salon de massage am na ko am na ñu du ma sax koo xam ne ñu ko doon avertir am na loo xam ne su ma ko ci tegoon rek moom bu déggee wax ji dina xam kan la moo tax ma bàyyi ma taxaw ñun old school lañu duñu presse léegi bi nii de old school lañu la presse nag à bon doo parce que dans comme dans tous les métiers y a dafa am du positif et du négatif moo tax nag ñun aussi presse bi dañoo war a mànkoo doon benn di rayante ci suñu biir waaye ci biti ñu doon di solidaire su ko defee genre capitaine Touré ak waa Pastef ak ñeneen nag ñeneen ñi ak Sonko boys duñ ñu yàpp duñ ñu yàpp mais ils ont réussi si nous diviser instant bii nii da ngay gis ne am na télévision ak chroniqueurs yoo xamante ne ils sont carrément Sonko kenn nekkatu fi nekkatu nekkuluñ fi pour le peuple c'est c'est pas ñëpp c'est clair et net c'est ñëpp a ko gis ñëpp a ko xam ñu bàyyi leen ci biir te loolu warul nekk on doit être là pour le peuple man yàgg naa weddi Ousmane Sonko te am na waa Pastef yu nga xam ne waxtaan naa ci ak ñoom mësuma ko wax live ndax loolu c'est la citoyenne mais je faisais les lives correctement en prenant les gens de Pastef de manière équilibrée parce que c'est pour le Sénégal ma téye samay conviction c'est parce que yéen a ma yéen yéen ma ñoppati depuis deux mille vingt may topp di ma provoqué tey na xeex bi dem ba ëpp leen doole. capitaine Touré tuuti nga ci di jox ay leçons de morale ci légèreté nga ne on a ku la jox SMS jox la début ak fin wu numéro yi nga war a xam yow ndax numéro yi dëgg la ou du dëgg te boo dee naan te war nga mun a xam tuuti rek. kii war na fan la war a mën a jujale yenn yi ñu jox la heure bi ba minute bi non seulement date bi jour bi heure bi minute bi ñu jox la ko nga ne légèreté bu dee légèreté la yow capitaine tore mais porter plainte wala nga jox ko citation directe looy xaar doo porter plainte yàkkamti ngeen presse bi parce que am na ñu ñi nga xamante ne mooy nag day def naka sa du noonu rek lu xew rek ñu ñu ñu waa la presse journalistes yi gëbuñu dara ils sont corrompus patati patata la presse a bon dos et c'est faux te yow xam nga ne c'est faux li nga wax li ma war a wax nag ci yow bari na tu as fait preuve de légèreté yow capitaine Touré et d'immaturité déjà Ndeye Khady Ndiaye ama woon pour di ko utal avocat na du sa du sa rôle te du sa cër li xew ca bureau ba yow ak tamit euh, euh, la jeune Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye xam nga ko yow yaay beaucoup de manquements yoo xam ne def nga ko yow xam nga ko yow sa diggante ak yàlla yaayu des manquements bu fekkee ne dossier bi dafa injuste yow maître Tall di avocat wu Ousmane Sonko boo ko Pastef sa xarit la loolu yaa xam boo justoon nga integre nekk une personne de valeur nga ormal sa tenue yow capitaine Touré xam nga nooy def nga jël dossier bi ñu jox ko keneen nga décisiru dem defi leneen ndax xam nga ne sa àqulaay taala tu n'es pas objectif te munoo objectif ci dossier bi amoo leçon de morale bu koy jox yow kenn yow ñun bokkuñu ci ci ci ci génération bii de encore une fois ñun old school lañu keroog maa ngi wax di en bind ak benn waay naan ma xoomal toute l'armée est avec Sonko am na yoo xam ne di waxu live année 2001 ba 2005 2000 ba 2005 ku xam Mati Fall bu wal fajiri renseignement généraux yi am na yoo xamante ne duñ ko wax fii kon du yow yaa may jàngal yow yaa may wax lan mooy journalisme am na yoo xam ne pour rien au monde duma ko wax ci live renseignement généraux jamono yooyu xam nañu suñu génération ñun dégg ngeen foofu laa yem ak yow na nga tal sa bopp nag te nga génn ci samay 18 yow capitaine Touré foofu laa yem ak yow li jëntil sa avenir ngeen bëgg a bluff ak ay wax yu rëy ak ay wax yu dijj ñu jàll ci leneen yabaate ngeen torop ñu jàll ci leneen génn ci anonymat jékki-jékki rek booy Sonko yi da xam nu mu demee ci réseaux sociaux yi ku ci ne am nga sa dix faux compte nga defee ne ils sont tellement nombreux tu es un héros nekkoo fi benn héros réseaux sociaux yi ñu la xamoon ñu la waxoon deal bi di nga génn ci àdduna ils sont pas majoritaires dans ce pays tu n'es pas un héros redescends sur terre ñu continuer ñëw ci foncier bi Mamour Diallo kii di Ousmane Sonko ci boppam tu as fait beaucoup de mal Ousmane Sonko xaw ma ndax yëg nga ko ou pas mais su ma sañoon yow kese boo toggee ak yàlla sans kenn baalul ak am ndax danga tooñ ñu bari Ousmane Sonko nit a lëndëm je t'admirais énormément Mmh. Je t'admirais énormément comme ni ma admiré Thierno Alassane Sall comme ni ma admiré juge Dème ak ñoom Thierno Bocoum mais ak li ma xam yépp moo tax ma ne sa noon dëggantaan mooy yow Ousmane Sonko tu as fait beaucoup de mal am na yoo xamante ne pour rien noo monde duma ko wax ci live mais yow xam nga tooñ nga nit ñu bari am gàddu nga àqu nit ñu bari yow Ousmane Sonko et je le dis yàlla rek moo tax may wax gàddu nga àqu nit ñu bari yow Ousmane Sonko ñu ñëw ci seen syndicat impôt et domaine boobu sama gars yi gars yi ñu ngi naan 94 milliards 94 milliards yi en parenthèse Mamour jàlloo am na kàddu yu am solo yoo xam ne wax na ko ngeen tuumaal ko ñu man mii jël naa fi waa Pastef def ay live live live lu ne wax nañ ko ko yekk ko ci sama live bii mais ba ma ko dégloowee sama sama yàlla rek moo tax may wax yàlla nag moo xam ci diggante moom ak Ousmane Sonko waaye lenn de xam naa ko à cause de cette affaire là cet homme a beaucoup souffert et sa famille également te yow est-ce que tu es blanc comme neige yow Ousmane Sonko dans cette affaire la j'ai écouté sa voix tout de suite ak man li ngeen ma teg ak li ngeen teg sama yeneen moroomu nit ma ne cet homme a beaucoup a beaucoup souffrir est-ce que yéen yéenay les anges yéen est-ce que yéen vous êtes vous les saints yow Sonko ak sa gàngoor est-ce que vous êtes vous êtes blanc comme neige tontu leen ci lii nga xamante ne moom lañuy ñu ñi di wax ci suuf yow Ousmane Sonko yéen seen syndicat des des impôts boobu et domaine balaa may jël sama gars yi nekk géejawaay nee nañ ma ngeen leeral ko nag ndax dañu maa wax sama rôle la sama sama sama liggéey la dañ maa woo jox ma information apparemment yéen ci seen syndicat ba. bu homme d'affaires ñëwee gagné benn marché dafa war a ñëw ca impo am pourcentage yoo xam ne daf ko war a joxe pour état bu Sénégal loolu c'est légal c'est normal bu fekkee nag ñëw ñëw ñàkk nga chance ba tombee ci un membre du syndicat information lañ ma jox nag te moom laa jottali jottalikat laa soo ñàkkee chance nag ba tombee ci un membre inspecteur boo xamante ne des impôts boo xam ne membre la ci syndicat wu impôt et domaine qui est égal Pastef je vous l'ai dit boo ca tombee yow yàqu nga même bu fekkee ne sax yow marché bi ci laa yuy honnêtement amul dara lu frauduleux amul dara lu garaaw dinañu lu def genre chantage te yenn homme d'affaires yi pour que nga nga ceebal leen pour que nga ceebal leen bu dee am na lu tuuti rek lu ci xaw a dem wala lu xaw a jaaxal seen boobu lu xaw a kii jiixi jaaxal seen cerveau bi rek ñu di la ay benka ñenke pour que nga jox leen nga ceebal leen pour que yow ñu nga may leen jàmm yow ñu may la jàmm parce que homme d'affaires yi ñu ci bari yenn bugguñu coow bugguñu seen mbir di am coow donc parfois di nga nekk si dëgg sax ñu xam ne ñii ñu ngi lay noggatu mais yow da nangu rek rek yow yow yow nga nga ceebal leen rek pour nga débarrassé wu ci ñoom mafia boobu leeral leen ko ndax dañ leen koy jiiñ am ndéet mafia boobu lu metti loolu ngeen di teg yenn homme d'affaires yi te kenn ñoŋu te ñemewu koo wax nag instant bi nii seen syndicat boobu yéen ñi bëgg a changer bi yéen ñi bëgg a changer Sénégal yéen ñi di dénoncer ñoom Mamou Diallo ak ñeneen ñeneen nit yi ak ak ak ñeneen euh, nit yi détournement dugg fi génn fii gars yi ñu ngi ñu ngi leen di yëlëb de léegi ñu ngi yëlëb leen de affaire yu garaaw ñu ngi feeñ de yu garaaw a garaaw nag man sama bopp dañ ma jox jéppi naa leen de waa Pastef dëgg la et tout je mais dañ may jox information yoo xam ne sama yaram dafay daw parce que man ba ma demee Sénégal ba ñibbisi li ma njëkk a wax mooy la corruption au Sénégal administration sénégalaise la politisation de l'administration sénégalaise mais tey bu ñu demee ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di ay jeunes bëgg a changer Sénégal fekk na ñoom ñoo gën a nëpp ñëpp ñoo gën a wuyu ñëpp fan lañu jëm fan la Sénégal jëm kan ngay wóolooti je vous le dis avec le cœur de manière sincère les les amis kan ngay wóolooti fekkee ne da ngeen bëgg a changer le système mu am ay dil yu salte ci suuf war ngeen leeralal mbir yu bari ñu continuer mbirum foncier bi nag ma ñëw léegi jël sama gaay yi ndax 15h30 heure de Dakar laa leen waxoon mbirum foncier bi ci boppam gars yi liñ ma wax te dinañ ko wax a seen bopp mooy ba tey de waa syndicat syndicat des impôts et domaines nee na ñoom ci seen bopp mi ngi mel ni tey policier boo xam ne yow yaa war a doxal yoon sax yaa war a taxawal yoon yow foo taxaw rek yow da nga fa war a taxawal yoon di réguler bu dee yow ci sa bopp yow yaay jalgati fan la senegal jëm nee nañu yéen terrain yi ngeen acquérir am na yu bëri yi nga xamante ne ni xam nañ ne am ngeen ñi ngeen ko jaay am na yoo xamante ne déclassé wuñ ko sax te te caxat caxata ngeen ko jox nañ leen ko xamuñ fu ngeen jaar yéen syndicat des impôts et domaines fan ngeen jaar ma jël waa Géejawaay su ma paree jël bëgg baay non am na yoo xam ne je suis vraiment c'est trop en fait mais nañ dem ba ci kanam euh, donc defe naa moom moom moom euh, jàpp kon ma jël euh, ma jël ma jël Amady gars yi maa ngi leen di juuj maa ngi leen di woo waa Géejawaay gars yi may leen ma tuuti rek am na affaire boo xamante ne foog ma foog ma lijjanti ko 30 secondes rek parce que woo naa waa Géejawaay jotuma leen may leen ma tuuti rek ma lijjanti boo xam ne il faut ma lijjanti ko am na moment boo xamante ne ni am na ku ma proposé ma def livre c'était en deux mille en en en en deux mille neuf quand j'ai eu mes problèmes bu Atlanta bi mais j'étais pas encore prête tey moom mooy le rédacteur en chef ma di ko nuyu euh, bu Seneweb j'étais pas encore prête qu'est-ce que bés bu ma waxee lu xew ci mbirum visa yi 2009 di ngeen jàpp seen gémmiñ Sénégal dëkk bu doy la tey biir Pastef tey am na tey ñaari femme yoo xam ne xam nañ leen ci réseaux sociaux yi ñi ngi woon au cœur de l'affaire des visa de 2009 ma ñamal leen ci pour xam xamal leen benn affaire bu ndaw dangeen a xamul lu xew mais tuuti ngeen pour ñëw di ma di génne dossier boobu pour ne ma matili wala matili man su ma tëdd damay nelaw nga xam naa man may kan xam naa obstacle yi ma traversé ak lu injuste yu ma dund dama ni mbirum affaire visa yooyu am na benn femme boo xam ne jamono yooyu elle était puissante jëkkëram mi ngi woon ci biir armée bi ñu di ko protéger ca jamono yi Ablaye la woon te c'est un ministre un ancien ministre bu Abdoulaye Wade loolu ma taxoon ba ma toogee ne damay grève de la faim damay taxaw buntu pale ñu bëgguñ woon parce que xam nañ ne Wade ci boppam tout le temps ci terrain bi il m'avait reconnu te su ma fa taxawee dina ma recevoir te génn naa génn yoo xamante ne seen dil dina toj dans cette affaire là dans cette mafia là y avait des ministres ci jamono yooyu bu ñu voyage dañ daan yóbbaale ay nit te femme boobu ak benn procureur de la république ak ay ministre ñoo bokkoon ci deal boobu femme boobu ëpp pexe ëpp doole am ñu koy jàppale ñu jaay ma doole may def sama sama sama sama sama événement mu dugal ci ay nit am na ñoo xam ne porté nañu plainte dem naa ba observateur le directeur de de la de la rédaction ma ànd nit ñu génnee plainte bi woon leen ko mu war ma innocenté les gens avaient peur ma téye ko gars yi setal nañ ma nag mais dañ ma wax ma noppi ñu ne ma ma noppi en 2010 delluwaat naa Sénégal on m'a reçu du ma wax fan lañ ma recevoir ay kilifa ñoo ma recevoir ne ma ñi mot nañ la pap mot nañ la yaay nii ay tant ñii gang lañu mafia lañu depuis presque 30 ans ñi ngi def lii xale bu ndaw mënu leen yàqal lii. lii c'est un gros morceau boo xam ne di waxul léegi tuuti ngeen nag pour di ma provoquer ba ma génne génne lépp fii. ba nga xamee ne Ablaye Wade régime am wàcc na amatul ku koy protéger moom ca boppam lam ma def elle a fait pire avec d'autres personnes elle a fait emprisonner d'autres personnes d'innocentes personnes moom cette femme là ba régime ba wàccee ña koy protéger amatuñu pouvoir téye nañ ko am na ay problème avec avec avec euh, la loi sénégalaise jamono ji ma ba Amérique dem na yoonam kon yàlla atta na moom te waxuma ba tey bu leen ma provoqué là c'était un c'était benn mafia bu rëy encore une fois mais dans ce régime là am na janoon def naka sa du noonu am na ñu nga xamante ne si gore nañu ndax ministre moo ma oo bureau tegal ma lépp na ma yow xamoo woon foo dugg yow yàlla moo dimbali yàlla moo la sauvé e et continue ta vie ndax yàlla jàppale na la xamuleen nu mu demee nag ndax ci problème visa boobu fekkoon ne dama doon jaay visa kon tey ji yor na samay 4 daf ñoom ñoo yor kat kat ñoo yor xaalis bi jaay sama oto sama yaay jaay ay bijoux jaay ay ay ay ay ay yor yépp ndax ñu mun koo fayee ay bor wax jooju du léegi loolu mooy sama premier choc ci àdduna sama papa génn àdduna aw ma fenn fu ma koy jooyee loolu je suis pas prête pour bind ci livre loolu mooy sama première déception dans ma vie parce que man li ma sama papa jàngal mooy nga def lu baax mooy nga jàppale nitu nitu euh, doomu aadama mooy nga gëm yàlla yàlla lu baax rek la lay jox jamono yooyu dem naa ba presque sama sama religion sax damay toog di di ne lii est-ce que dëgg yàlla est-ce que Dieu existe ngeen baal ma mais il faut que yàlla teg la yenn nattu yi pour nga mu war la sa yoon loolu moo tax man au fond de moi au fond de moi am na yoo xam ne yu bon yoo xam ne du ma ko a def ci àdduna ndax xam naa ne yàlla il est avec tout le monde mais il est avec moi te sama bi nekk àdduna mi ngi avec moi il ma protège dossier boobu du waxu léegi da ngeen a xamul nag te wa femme boobu tey moom mu ngi biir Pastef mosuma ko wax parce que Pastef responsable luñ tamit ci képp ku ñëw ci ñoom moo tax mosuma ko wax ñaari femme yëpp ñi ngi biir Pastef nañ dañ bëgg a changer système bi parce que neexleetuñu te ñoo gën a kooba ñoo gën a wuyu ñëpp seen mafia moo tas ñu jël waa Géejawaay bu leen ma wax loo j'ai gardé di gore nag bu leen ma wax loo de ah xalifa nag xalifa nag maa ngi lay woo rek xalifa tamit live bi tamit xalifa maa ngi lay woo rek nag ah ah léegi bàyyi ma ma owaat xalifa xalifa bàyyi leen xalifa bi ngeen di woo dafa war dugg ci live bi ñu waxtaan ah nga waaw kon nag ñu jël euh, Amady kon bu ñu ko bu ñu ko jotulee ñu jël euh, ki nga xam ne moom mooy euh, bëgg bàyyi gars bu leen ma wax loo am na loo xamante ni dama bëgg bàyyi xam nga ba ma kii waaw ba li ma war a def yëpp ba pare ma def ko livre pour pas pour pas me venger mais pour que ngeen xam waaw pour que ngeen xam aussi voilà am na xam ne mënu ko wax ñu bëri dinañ ci jàng lu bari ndax li ma dal dal la ñu bari sénégalais yu bari ñu wóor leen ñu dund lu metti waaw mbokk mi maa ngi waaw maa waaw xalifa mi ngi woote ci suuf. mi xalifa maa ngi lay maa lay delloo ko. Ah, a ngi lay ah, ko kooku. waaw man la Mati Trois Pommes da xaw ne gis nga sama message. man la mat Mati Trois Ah, ah Mati Mati eh, maa maa lay ziaraale maa lay ziar baax di lay ñaanal yàlla. voilà voilà. jërëjëf waaw maa maa ngi jot sa message bi avec ah, man aussi man aussi donc euh, Ngaraaf moo ne ma woo la pour seen combat bi foofu au niveau de Guédiawaye. ak ak collectif bi ngeen taxawal. ñu bëggoon nag vraiment def ci waxtaan bu am solo. waaw waxtaan bu am solo lañ ci bëggoon def. Euh, ngeen euh, ñu bàyyi la nga mbokk yi. voilà ñu bàyyi la nga ak mbokk yi en quinze minutes rek parce qu'on a prendre également Khalifa waaw. d'accord d'accord asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk diaspora. Mm-hmm. asalaamaaleykum tous les autorités patriotes. Mm-hmm. du Sénégal. Mm-hmm. asalaamaaleykum Mati. maa ngi nuyu sama mbokk waa Guédiawaye particulièrement ñooy samay les premières euh, ma ba première grande famille mm-hmm. euh, man maa ngi tudd Hamidou Diallo man maay président départemental des délégués de quartier de Guédiawaye mm-hmm. mu composé wu nag euh, cinq communes mm-hmm. mu ngi environ à peu près cinq cent mille habitants ñun ñëw ñu ngi ci la dans la région de Dakar vers le nord suñu koy wax bande Euh, bande de Filao muy le littoral. Mm-hmm. ñu ngi nekk euh, à côté de l'océan Atlantique. Mm-hmm. Euh, ñu bu ndaw mm-hmm. bon climat bon à vivre xam naa loolu moo tax gars yi daal. mais incha allah. doy na waar daal c'est très compliqué. waaw mais ñun nous sommes nous voilà mais lu ñu bëgg a xam moom mooy lu ñu bëgg a xam et domaines. waaw donc tudd nañ leen ci euh, léegi lu tax ngeen wax ne euh, ñoom en fait dañoo mbubboo syndicat bi pour di jël ay ay ay ay terrain foofu en fait dire que lu tax yéen ngeen ŋàññ li ni mel doxalin bi. Mhm. non waaw xam nga lu tax ñu ŋàññ loolu. waaw. Euh, waa domaine wala waa cadastre parce que quelques agents yi c'est pas tout le monde. Mhm. dafa am organisation wala. Mhm. ay soi-disant des gorobonés des cadres ñu fa nekk. ñu constitué benn groupe bu ndaw. bu gën a noot Sénégal mhm. géejuwaay nag dañuy wax ñoo ko moom dañuy ne dañuy taxaw tem aar suñu gox mhm. ñun laaju lu ñu moomul luñu luñu lu ñuy laaju muy moom mhm. bi si biir biir la bokk eh, population yi ñoo ko moom dafa nekkoon fii di aar géej gi sa ndox xorom si bañ a daan suñu kër yi léegi yàlla def na ñu ngi a def projet pour taxawal ay bande filao léegi nag Samba Sura Bali ñu mu leen mën a tuddee mooy maanaam syndicat ya ñoom ñu jóg parce que ñoom ñoo nekk si métier bi la nekk si bureau yi. Mhm. nekk seen biir rek bëgg a tuuti continuer d'être riche les autres restent euh, continuer d'être pauvre. Mhm. ñu ne leen lekk lu ngeen moomul du ngeen ko laal. Mhm. ñoom na comme ñoom ñooy dogal. ñoom ñooy signé ñooy nangam nangam. ñu ne nag loolu du fi dal. ëpp leen ñu doole. ëpp leen ñu dara. du ngeen ñëw nag. Euh, ñu demandé le président la République avec sa générosité mu déclassé ko parce que mënutul ne garab yaa ngi fi depuis mille neuf cent quarante huit kenn mënut ko déclassé def nañuy déclassé nañu benn route VDN ci gën naa diggante VDN bi route bi ak géej gi dañ fay def ay ay garab léegi di siy dees na dañuy def ay commodité ay équipement sportif pour des hôpitaux des universités extra loo xam ne ville dafa war a am pour mën a dund Mm-hmm. Ah, euh, yokk cadre de vie am. Mm-hmm. léegi nag Samba Soura Bali ak gorom bone yi nekk xam nga fan. yi mm-hmm. jege Macky Sall bu ko bu ko nax président de la République. ne ku nekk ne damay jël fii ta vingt hectares. deux hectares. nangam nangam ñu ne ñu ñu taxaw tem na constitué. ñun nga xam tous les présidents départementaux. toutes les toutes les populations de waay ñu ne na ñoo lànk. du fi amee tey du fi àll ëllëg. saisir nañ na autorités yi yëpp. incha allah on est en phase avec eux. Mm-hmm. incha allah ñun dañu taxaw tem. Mm-hmm. muy cadastre muy syndicat ak muy nangam nangam. Mm-hmm. lu ñu bugg ñu bugg nañ lu gën a raw lool. ñu nangu lool tey duñ ko nangu léegi nag. ñu ngi ah, ah, l'arbitre le premier arbitre euh, ah, l'arbitre. c'est le président mooy arbitre. mais hey sa agent am yooyo. nañu taxaw xam seen place. parce que bu ñu duggul ñu parce que ñoom. il faut toujours rester riche ils ont des voitures ils ont des maisons Sénégal fu yëngut rek ñu ñu ñu tagg. loolu nag mënul nekk. Mm-hmm. mun na nekk di day xalaat day day dee. di mm-hmm. dundam lu gàtt la. Mm-hmm. su dee su deewee dafay bàyyi mais ñoom dañ dañ koy jël da koy def kiiwu euh, euh, commerce. c'est-à-dire spoliation c'est du vol. Euh, agression sax mun nañu wax sax c'est du terrorisme foncier. léegi nag bu ñu teetaan loolu parce que ñun ay néegu doole lañu ay mhm. population ñu on peut sauvegarder l' avenir mhm. de te xam ne suba suñu fi jógee deewee mhm. suñu doom yi suñu sët yi dañu fi fekk dara loo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu mooy esprit euh, dans la généralité loolu la saisir nañu maire la ville saisir nañu maire yëpp ñu ñëpp ñu ngi ànd mais Samba Soura Ba ñu koy jëf ñun doon da ànduñu si dëgg yàlla d' accord dernière question parce que je dois prendre Khalifa euh, ngeen prévoir def ce que euh, vous de faire conférence de presse ou bien euh, voilà manifester de manière pacifique qu'est-ce que vous comptez faire pour vous faire entendre waaw loolu ñu comptons faire entendre mhm. mooy euh, on a déjà avisé les euh, premières autorités locales le mhm. premier magistrat de la ville mhm. waxtaan nañu moom wax nañ ko suñu tànk wax nañu le premier responsable administratif bu kuy toogal le préfet waxtaan ñu wax nañu suñu tànk si d' une euh, si d' une euh, revendication citoyenne. Mhm. ni revendication des populations. Mhm. ab politique. Mhm. benn politique su dugg te duñ ko nangu. exactement ñu ni neen la lu ñu ko dawaree. léegi nag. loo moo tax mu combi may coordonner tous ces mouvements là. je suis le coordonnateur. on a une organisation interne on va prendre aussi des personnes ressources. ñu ba ànd ak ñun. ñun on va se ressembler. ñun ñëpp suñu jógee. le le les imams. les bajenu gox. les jeunes les papes. Euh, les délégués de quartier. Mhm. les les euh, juddu. Mhm. ñoom suñ génnee sable géej waay taxaw mhm. nekk benn bopp. mais on va se ressembler. ñu waxante. informer taxaw tam. obligé na la république son premier chef na artu njabootam bu sew boobu. nga xam ne c' est des voleurs de foncier. nañu arrêté suñu arrêté nag dañuy fekk si yoon bi. d' accord loolu daal on va faire des points de presse. incha allah rabi. yaakaar nañ ko gagné. mais on va jamais accepter même les maires. ñu nekk ñu fi nekk rek yaakaar ñoo moom dëkk bi di di di jaay ay suuf di jaay loolu c'est fini ça. d'accord bi maintenant on est en vingtième siècle. Mhm. kenn du fi def lu ne parce que aussi la constitution. nous mhm. donne droit de regard ak lu ñu moom. Mhm. loolu nag comme bu ñu ñoo ko moom nag. duñ ko bàyyil kenn. muy muy saafaane di ko def lu fi ñaaw. def nañ alerte nag mais def nañ mise en garde les maires les autorités les politiques. nañuy def ndànk suñu defoon ndànk dañuy fekk si yoon bi. d'accord loolu moom on va se mobiliser incha nous tous, avec euh, Ngaraf, il n'est pas venu dans notre groupe, on ne l'a pas choisi comme euh, politique, on l'a choisi comme personne ressource, mm -hmm. comme un, euh, un expertise dans ça, pour mhm. euh, nous conseiller. conseil. Mhm. Lors nañ ko jëlé mais bu duñu nangu kenn ñew mhm. duggal suñu mouvement bi politique d'accord ñun population ñoo fi ñu takko nek benn ben bop di xéxal nak inshallah on fera tout pour voir le président de la République wax ko nak suñu doléance né ko nak la at ñobatam suñu ñun dañ dañ on est prêt à donner notre vie pour défendre notre notre territoire. incha allah moom incha allah rabbi dañ ko def wala. merci beaucoup loolu da nga maa lay remercier di lay vraiment bëgg naa dégg sa baat bu lool <laughs> dégg naa ko te je vraiment fier. waaw kontaan naa maa ngi bëgg nekk ak sa gox entourage yëpp eh. Eh, ñu ngi leen ñaanal Guédiawaye mu lay nuyu. Eh. Sénégal mu lay nuyu. maanaam nit jàmm ñu ngi lay nuyu. ba mu def les sa euh, euh, sàcckatu ak ruubaan yi <laughs> waaw ñëpp ñu ngi lay ñu ngi ñëpp. merci beaucoup merci beaucoup <laughs> merci beaucoup merci merci Mati. Euh, soldaaru soldaaru bu Pape Alé xam naa yow yaay kan je sais qui tu waaw yow nag bettuloo ma waaw parce que man nit dama lay téye ba keroog may gis leneen yow soldaaru Pape Pape xam naa yow yaay kan. yàgg nga ma woo pour ma jël ay sujet yàgg nga ma woo pour ma jël ay nit yàgg nga ma woo di ma woy grande sœur ne danga ma jox respect waaw yi mois de mars bii la ca xew ci boppam nee nga ma ci boppam yow gëm nga ni euh, euh, Ousmane Sonko dafa juum war woon dem ca suite beauté munoo maa jaaxal sama rakk nga munoo maa jaaxal sama rakk nga li ma la bëgg a wax rek moom mooy ku toog 2009 ba tey ak sa ngor waxuloo mooy amoo pour de victimiser wu j'ai dépassé j'ai tourné la page comprendre nga ça m'a endurci ku bëgg ay visa mais demal ci ñaar ñooñu am na ci koo xamante ne ne mi ngi ca biir Pastef am carte membre mi ngi lijjanti ma carte membre yi kooku mos na Ousmane Sonko mos na ma woo bu leen ma wax loo Ousmane Sonko mos na ma woo ma wàcc liggéey maa ngi dox ci mbedd mi mu may woo di ma wax turu kooku te ma nga États-Unis ma biir Pastef deuxième femme bi ki nga xam ne ba ma nekkee ca biir États-Unis ne booyi bu leen dem mu jël otoom ameur la yoroon jamono yi ameur moo xewoon mu jël ameur otoom di ci dugal booyi di leen rawale pour ñu daw ñii New York ak fu ne mu ñu rawale leen moom ak femme boobu jëkkëram nekkoon biir armée ñoo bokkoon ci réseau bi kooku def mi nga ca biir Pastef ñëpp xam ko nag moo nekk ci ginnaaw booyi waaw keñ bu leen ma wax loo kooku ma nga ca biir Pastef takk fa ripp nag ma ni la Ousmane sonk mas na ma woo ba wax turam waaw keñ moo ngem ba xale yu bari ci biir diaspora bi dafa yor kàttam ba bay jàppale ay ni pour ñu pour ñu mën a am carte membre Pastef ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu Pastef dafa bës dafa bari euh, euh, euh, sonk dafa am ay sympathisants dafa am Pastef ña nekk Pastef ak ñi nekk sonkiste waaw keñ ñi dàq saaga ñi gën a ñi gën a méchant ñi gën a bon dañu ne ñoom ay sonkis lañu ndax jamono jii am na yoo xam ne mënuñu ko wax mais même début mars ba coow la éclaté ca biir Pastef am na ñu jàppoon ne Sonko dafa waroon def tuuti recul mais ñu bëri boo gisee ñu noppi ndax sonkis yi moom moo tax dafa am ñoo xam ne Sonko moo leen tax a jóg te bokkuñu Pastef te waa Sonko lañu di xeexal Sonko di cotiser di ko jàppale ci fànn wu ne bu leen ma waxuloo seen mag la maa leen mag seen manipulation yi du jàll ñu ci bari seen faux compte yi xam naa ñan lañu dama leen bàyyi ci biir ndax ay doyul leen ma sa gallax ndiku leen ma gallax ndiku yéen nay dof doflu sama kaw waaye Sonko xam na xam na ma bu baax waaw keñ xamu leen ne gars yi ñu ngi ut émissaire pour jàmm bal ATR xamu leen ko ñàkk ngeen jomm ñu continuer da a xamul yéen toog leen ci réseaux sociaux yi rek di ŋàpp di ŋàppi ŋàppi. maa leen xalifa oh. wàññil wàññil xalifa wàññil wàññil. Mati na def. maa ngi lay may ma tuuti xalifa ma yeggali benn mbir pour présenter la. waaw euh, gars yi pour xamal leen ni leen. ki ma woo. Mm-hmm. dafa tudd. Mm-hmm. tudd na euh, euh, waa syndicat des impôts et domaines mais moom ci boppam mu ne ma lii mati defuñu ko pour politique dañ koy def pour Sénégal xooluñu kii fii la bokk wala fële la bokk bu dee waa pouvoir dañ ci am dañ koy wax bu dee waa waa waa Pastef dañ koy wax mu ne ma lii duñ ko politiser loolu moo tax ma defee ko live tey jii donc c'est pas parce que la ñuy defoon ne Pastef ak yu de benn déedéet man dañ maa briefé bien avant na ma lii c'est pour le pour Guédiawaye amul coloration politique dañ maa briefé avant mais man maa def la corrélation ci sama sommaire ak 94 milliards ak yenn yenn homme d'affaires yi lañu la ñuy wax ak ñenn ñi lañ may wax ne loolu lañ leen a subirloo au niveau des impôts et domaines mu indi ñaari affaires yi te ñoom ñu bëgg a yor Sénégal moo tax ma def la corrélation xamu leen nag rek la leen. waa Khalifa ñu ngi lay ziar ñu bàyyi la nga nga nga nga kii nga nga nuyu nga nuyu gars yi. mais maa ngi lay nañ Sénégal na mu nañ la <laughs> vraiment yow toujours da nga yàgg di dox ci actualité. merci beaucoup. te tu as été toujours euh, aux côté des populations vraiment. ñu mhm. ñun étant jeune ñu yàgg la suivre bi ñu nekk xale te ba yàlla dénk ñu. ñu bokk dans les organisations. dëgg la vraiment c'est une fierté d'intervenir dans votre émission. merci beaucoup man maa ngi tudd Khalifa Gueye nekk le président du conseil départemental de la jeunesse de Guédiawaye. voilà. Euh, par je suis membre de ce de collectif te collectif bi ñi ko jiite. Mhm. muy le conseil de la jeunesse. Mhm. muy le la, la les délégués de quartier. Mhm. l' association départementale des imams. l' association départementale des bajenu gox. l' association départementale du conseil consultatif des femmes. l' culturelle des acteurs culturels et artistes comédiens notamment ARCO mm-hmm. l'association départementale des artisans c'est pas une chose boo xamante ni mm-hmm. dañ ci jóg pour politique wala leneen ak déedéet mm-hmm. si c'est des organisations yi nga xam ne représentatives parce que quand on avait euh, émis l'idée de déclasser la banque beaucoup étaient réticents et sur cette base il y avait des concertations pour qu'on fasse un aménagement concerté où toutes les préoccupations seront sont prises en compte dans l'aménagement Et ceci a fait l'objet d'une délibération au niveau de la ville. Mm-hmm. Moi, j'étais là en tant que spectateur pour mm-hmm. xool lan moo fa xew ak lan lay demee. Mm-hmm. bu ñu génnee plan d'aménagement bi ñun lu ñu convaincre mooy. Guédiawaye c'est le département dans le Sénégal boo xamante ni ou bien am. oh y problème de. Ah, oui appel yi ñooy dugg. amul fenn. Uh-huh. Guédiawaye tey. Uh-huh. cimetière si bande bi lañ def érigé cimetière ba léegi ci jéegul mhm. donc géejawaay amul gare routière gare géejawaay amul amul amul abattoir mhm. géejawaay amul industrie géejawaay amul hôtel géejawaay amul dara mhm. donc il ne nous reste que cette bande de filao et bu ñu xoolee depuis ces dix dernières années dañuy gis au fur et à mesure ginnaaw cité enseignant ginnaaw cité SSS ginnaaw cité Amontois donc syndicat yi impôts yi ak gars yi nekk impôt cette bande qui était une bande classée ñu ñuy jox ñuy joxe ay titre mm-hmm. ñu xam ni kat kon su fekkee ni mm-hmm. ñu jeexal suuf si dañuy perte mm-hmm. donc moi je pas je pas je pas comprendre tey que des fonctionnaires de l'État se permettent délivrer des actes dans une zone classée boo xam ne déclassé wuñ ko donc bépp boo xam ne def nañ ko fa rek nul et non avenu d'abord loolu sur le principe loolu mooy d'abord wax beneen bi mooy cette bande de filao ñun la moo tax ñu d'accord sur le déclassement parce qu'il est prévu là-bas des centres de formation qualifiantes mm-hmm. avec le ministère avec le ministère de la formation professionnelle mm-hmm. il y espace bu nga xamante ni c'est l'espace la maison de la jeunesse et de la citoyenneté mm-hmm. boo xamante ni complexe la ba nga xam dafay jël en compte toutes nos préoccupations chaque année ñun ñu ngi xeex pour xale yi dee si avec nekk dans le département mais tey aujourd'hui no n'avons pas une alternative boo xam ne mën nañ ko offrir jeunes yi mm-hmm. ba nga xam ne tey mën nañ bañ a dem ci géej mm-hmm. et donc ce ce kii là ce ce cette maison là dafay amaale ci biir ay piscine mm-hmm. boo xamante ni avec des tarifs accessibles yoo xamante ne jeunes mën au moins quand ils veulent passer leur temps ñu mën am fu ñu koy defee mu am des des aires de loisir au delà de ça tey tey muy Siri Diop muy artistes yi ngay gis ñuy Pape Diouf ñoom ñëpp quand ils jouent le spectacle ils partent jusqu'à jusqu'au département de Dakar pour dem Grand Théâtre pour dem Sorano est-ce que nous ne méritons pas avoir des infrastructures culturelles. ci ci bande mais mais comment ça se que parce que dégg même yi nga xam ne sax déclassé wuñ ko am nañ fa ay terrain et tout mais comment ils font. non aussi euh, des gens disent que dañuy jaay terrain yi bon il faut nee il faut aussi mu am. non euh, mais je vous dire. non parce que non non non je vous dire je vous dire. il mm-hmm. euh, a des actes que Euh, duñ ko signé et ce sont les techniciens de l'État je dis ce sont les techniciens de l'État mm-hmm. notamment le service des impôts et parce que boo jëlee seen foot un mm-hmm. mais cest dire que dañuy jàpp comme c'est des promoteurs mais en réalité c'est la propriété des acteurs même des impôts ñoom ñoo ko moom mais dañuy jël quelqu'un mettre ko devant mm-hmm. dañuy jël un promoteur un promoteur qui n'a pas accès sur le foncier parce qu'il n'a pas accès au ñu def la diligence génne ko léegi dañuy ñëw comme comme day nekk genre fait accompli après qu'ils peuvent négocier mhm. nous on ne négocie pas sur cette bande là mhm. que ça soit clair mhm. cette bande là li ko président de la République euh, classé li nga xam ne réservé nañ ko pour pour infrastructure nañ ko dédié à l' infrastructure li nga xam dañ ko dañ ko dédié pour voir ñu ñu bañ ko détourner li nga xam ni dañ ko détourner pour ay logement que ces logements soient accessibles aux populations du ñu accepter que des services des impôts au Sénégal fu ñu dagg fu ñu dagg ak katas fu ñu dagg lotissement rek ñoom ñu dem am fa suñu paree jaay ko bu ñu dagaatee feneen ñu ñëw taxaw là c' fini. c' fini on ne peut jaay boobu est ce que am ngeen ci ay preuve jaay jaay boobu parce que ñoom nee nañ ci turu coopérative lañu parce que am na société yoo xam ne dañu am seen coopérative xam nga di di ut ay terrain et tout ça pour seen i membres. mais d' accord nga Mati. Mhm. tout le monde est libre parce que on est tous devant égaux devant la loi c' est le principe d'égalité devant ou bien des fonctionnaires de l'État, quel que soit leur statut ou bien leur position, mm-hmm. se permettent de délivrer des actes, mm-hmm. des actes euh, euh, sous la complicité des promoteurs privés. Mm-hmm. Parce que les promoteurs privés, ce qu'ils font, ils viennent, ils misent beaucoup d'argent sur ces gens-là. Ils leur donnent en attendant, nous, miser, de miser. et là je dis ñun population Guédiawaye si ñoom ñuy miser noonu mhm. jël seen xaalis ay cinq cent millions ay trois cent millions jox ko service impôt ñu defal leen ay kii pour après ñu négocier mhm. là on la ñun accepter mhm. parce que duñu nangu suñu avenir ñu ko hypothéquer si cet espace là est est est volé ou bien tombe dans l'eau ñun on est foutu on est xool ça dit suñu avenir sera hypothéqué nous serons obligés de continuer à prendre du bus pour aller à à la Delafosse pour faire des formations Nous voulons des centres de formation de proximité mhm. qui sera accessible. Aujourd'hui, par exemple, nous, le Conseil de la jeunesse, moi, j'ai signé avec le 3FPT, dans le cadre même de la formation professionnelle. Mhm. Mais école bi ñu formé woon mooy kii euh, nu mu tudd mhm. euh, école bi nekk de la poste ah je de passage maa ngi nuyu le directeur Kébé mais lan moo ñu fa mais boo yu ñu joxoon bourse yëpp mënuñu dem parce qu'ils peuvent pas supporter la charge du transport donc ñu suñu obligé dem ci collectivité locale yi comme que ñoom ñooy suñu tiital mhm. demandé leen à ce que nañu subventionné ñu dem signé benn con benn contrat benn partenariat tripartite mhm. a Dakar Dem Dikk pour mhm. permettre jeunes yi ñu mën a dem ñu a dem am ay carte bus à à à des mais ça ça ça a un donc le mieux tey aujourd'hui ce que nous avons besoin c'est d'avoir aussi benn centre benn salle de spectacle boo xamante ni acteurs culturels yi a ñi nga xam ñooy def musique et tout le monde dinañ mën seen spectacle mais tey jeu spectacle à à à Sorano spectacle à fële dafa nekk ku ci ci ci nga ki nga xamante ne dafa dëkk banlieue mm-hmm. parce que tey quand tu sors à une heure du matin mm-hmm. pour dem Dakar tu payes cinq mille francs sinon taxi bi du la yóbbu. doy na waar doy soo soo soo génnee soo demee soo demee ci cérémonie wala spectacle mm-hmm. quand tu sors à trois heures quatre heures du matin si tu ne payes pas sept mille francs duñ la yóbbu ba duñ la yóbbu banlieue. doy na te et tey nous avons besoin de ces infrastructures mhm. tey nous avons aujourd'hui ñun suñu taxawaay xam nga lan la ñun bëgguñu ci un don yuta xam nga lañ bëgg mhm. plan d'aménagement bi nga xamante ni moom lañ doon waxtaanee ça fait des années mhm. ba déggoo ci ak acteurs yëpp ba ñëpp taxaw ñu ñu ñu kii ko beneen bi également là fu là où j'appelle les populations et les autorités mm-hmm. parce que dans le cadre des conseils dans le cadre des vacances citoyennes ñun avec le ministère de la jeunesse commencé woon nañu reboisement mm-hmm. et j'en profite pour se féliciter Guédiawaye je m'engage conseil de la jeunesse mm-hmm. dafa jëloon engagement di reboiser diggante géej gi ak filao yi parce que enjeu bi tey bi nga nekk diggante géej ak filao bi parce que booy pro mënoo protéger ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw tali bi nga ni da ngay da ngay def action pour jëm ci lu jëm ci maire bi diggante géej gi ak ak ak ak tali bi mhm. fa la décret bi wax na ko mhm. maintenant là on attend les autorités mhm. que les autorités municipales dans leur budget que dégagent des fonds destinés au reboisement de à l'implantation des filao sur le littoral et loolu ça demande beaucoup de parce que l'expérience nous a montré que il faut beaucoup de surtout parce que vent bi boo fa tegee garab bu ndaw vent bu ci dalee da koy rey da koy lakk ba mu dee. nous en avons les preuves et l' parce que moom la ñu def programme vacances citoyennes en deux mille deux mille deux mille deux mille dix neuf. d' accord donc aujourd'hui mhm. population bi dafay taxaw du ñu nangu nag. Mhm. ay ay seen foot un seen foot deux. Mhm. ay ay de l' état qui se cachent derrière les promoteurs. pour prendre nos terres on l' pas et beneen bi mooy. on demande au président de la République au ministère des finances. le retrait des actes qui ont été d'une manière frauduleuse mm-hmm. ces actes là qui ont ñoom xam nañ ci dara ils ont des mm-hmm. ba ba pare ba pare ñooñu noonu promoteur yooyu noonu doon doon guerre mm-hmm. fonctionnaire yooyu que bu ñu defee poursuite que ces poursuites là soit classées ñu bañ a am suite parce que mënoo mënoo mënoo cinq cent millions jox ko un fonctionnaire de l'État ba nga xam ne amul lu droit moom mu jël ko jox la këyit après affaire bi kase te dem porter ko plainte donc nañu sanctionner kële mais ñële te nañ leen xañ bu ñu introduire des des poursuites contre ces fonctionnaires là ñu bañ leen jox suite parce que ñoom c'est des corrupteurs et la corruption est sanctionnée par le code pénal. ça c'est en tout cas euh, lii moom euh, début bi la rek parce que am na ñeneen ñoo xam ne aussi war naa wo woo incha allah voilà. pour non beneen bi may jeexalee beneen bi may jeexalee mooy collectif bi. non c'est-à-dire que y' a am benn bataille benn xaw ma ñooñu ils sont kii xaw ma qu'est-ce qu'ils sont animés de quoi. nous allons faire après la tabaski. rassemblement bu mag je vous dis tous les jeunes de Guédiawaye. se soucier de l'avenir de leur localité. Mm-hmm. les parents les femmes les bajenu gox les acteurs culturels. Mm-hmm. nous allons sortir pour montrer que ni mm-hmm. que ni que ni que ni population de Guédiawaye. tey ñi koy woo bàyyi leen woote bi waaye leen woote bi. waaw. waaw euh, euh, euh, xam nga nag ñun dañuy jaay xar moo tax. ça comprend. <laughs> ñu donc. <laughs> Uh-huh. Hmm, dinañ def sortie bu ñu génnee tabaski parce que diggante tabaski bi nit ñi tal nañ leneen lu dul on va faire une sortie nous allons multiplier les actions pour permettre aux autorités d'avoir la bonne information sur le sur la sur, sur le littoral sur la bande des filaos et que ces ces promoteurs là nañu xam ne sànni nañ seen xaalis hmm. que ces fonctionnaires là qui se cachent derrière ces gens là que ñu di ne c'est c'est c'est ñoom ñoom sànni nañ seen tamit foofu fii à Guédiawaye fii moom sa y est fini là moom loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu su incha merci merci merci merci merci beaucoup voilà donc mu doon xalifa euh, Gueye kon nag waa Guédiawaye lañ jëloon euh, tey jii euh, kon nag ma voilà ma jël nag bëgg baay donc voilà mu doon Khalifa Gueye président départemental du conseil de la jeunesse de Guédiawaye ak amadi Diallo du président du collectif départemental délégué de quartier de Guédiawaye ñoom ñëpp nekk membre collectif taxaw tem aar sa maa leen di remercier aussi Ngaraaf bu baax a baax a baax a baax jël nag euh, bëgg bàyyi euh, balaa ñu tëj émission bi euh, voilà di jël nag bëgg bàyyi kon yi gars yi ñu ngi ma naan colis ba nekk Maroc lu wér laa leen di wax ca robe rouge ba robe rouge mooy ñaareelu Sonko ba xam na bu baax colis ba nekk Maroc su ma nee colis nag du du du O L Y C O I S mooy koli comme koli yi ñu jëlee ca ca ca ca poste ba xale bu jigéen ba jàlloo la sant. santul ko li jàlloo sant te xam nañ bu baax la ñuy wax réglé leen. allo waaw bëgg bàyyi ñu ngi lay ziar. <laughs> waaw ñoo ngi ziar bu baax Mate. waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax bàyyi la ak euh, mbokk yi nga nuyoo. waaw. waaw waaw Mate maa ngi ziare di ziare sa gars yi di lay seetaan yëpp. waaw. di leen wàcc seen waay bu baax di leen wax ne man la bëgg bàyyi bañkat. waaw mais mais bëgg bàyyi bëgg bàyyi activiste. mais mhm. naka naka naka coronavirus ba foofa ca Sénégal dégg naa ne gars yi nee nañu euh, Macky Sall ak ay tournéem la. waaw ah. gars yi nee nañu opposition bi am nañ ci wàll. naka ngeen koy dundee coronavirus bi ni mu ni mu kaa yi ni mu yokkee jamono yi. waaw mag yi xam nga ñun dañoo nekk ci réew moo xam ne réew mu xaw a doy waar lu ñëw rek ñi def ko politique euh, politiciens yi wax fii ñi wax fee ñee wax fee tax xam nga. doo dangay dem saba bene instant doo xam lan nga war a wax. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la. waaw loolu moo tax coow lii doo comprendre opposition yi naan li mm-hmm. pouvoir bi naan lii. moo tax daal il faut ñoom ñu bàyyi xel sénégal sénégalais mooy li may wax chaque jour. dëgg la dëgg la. waaw parce que sénégal yi tamit dañoo soxla ñu respecté leen jox leen seen cër jox leen seen wàccuwaay parce que tamit loolu lu am solo la. mais corona bi moom. ah lu am la waaye nag na sénégalais jël seen matuwaay rek mais lu may bàyyiloo xel Macky Sall rek na na bañ a Mhm. tëj nit ñi pour bu ñu dem julli jéeg affaire yooyu parce que loolu tamit dafa nekk lu métti ci Sénégalais yi. dëgg la dëgg la dëgg la am nga nag. waaw loolu weesoo am na benn vidéo bi nga def. Euh, nga ñëw di wax ci Ahmed Khalifa Niass xam nañ ne yow en fait parfois di nga clash Ahmed Khalifa Niass mais bi yoon. da nga mhm. kaasal. ndaxte gars yi dañ ko commencé caxat caxatee ci réseaux sociaux yi man na xaw ma vraiment affaire bi fan la fan la coow li tàmbalee parce que vidéo bi dafa mel ni vidéo bi déglu woon naa ko avant. mooy ba muy expliqué ne Ousmane Sonko ñëwaat na ci këram euh, ñu waxtaan bu pour que mu jubóole ko ak Macky Sall. <laughs> waaw Mate yi nga allo. waaw maa ngi lay dégg maa ngi lay déglu. waaw maa waaw maa ngi lay ziar bu baax Mate gis nga euh, man toujours rek mooy li may wax dama bëgg Sénégalais yi yeew bu baax a baax. Mm-hmm. ndax loolu lu am solo la. dëgg la. parce que ñun ñëpp ay Sénégalais lañ. dëgg la. waa Ahmed Khalifa Niass euh, ku nekk xam na ne Sonko taxaw na fii devant Sénégal yëpp saaga ko. dëgg la xas ko. xas ko saa ko saaga parce que li ko def romb na xas saaga la ko def. billaay ba wax ci ay cërëm yi ñu ko kii ak ba naan lakk nañ fi xawma lanam ak lan yàlla ma yàlla ah. jéggal sax si ni ma ciy jaaree. billaahi. mu ëlbatiku moom Sonko taggaat fi Ahmed Khalifa Niass xeetu tagg boo xam ne nit ñi mënuñu comprendre. Mhm. troisième fois bi moom mu delluwaat kër Ahmed Khalifa Niass Ahmed Khalifa moo ne na fi yoon boo xam ne kenn yëgu ko mm-hmm. dugg këram mm-hmm. di ko wax ci mbiram diggante moom ak Macky Sall na ko yow yaa ma ci doy mm-hmm. wa Ahmed Khalifa Niass moo wax ñëpp dégg léegi nag ñoom ñi ngi saaga Ahmed Khalifa Niass ci commentaire yi partout te démb ba Ahmed Khalifa Niass taxawee tooge Sonko Sonko di ko tagg ñoom dañ ñoon tagg Ahmed ñoom daal li leen arrangé rek moo leen tax a jug mais Sénégal taxul leen jug réew mi taxu leen jug lépp lu leen arrangé wul rek dañuy saaga te te xam nañ ne bëgg bàyyi wax nga ko ci sa vidéo bi xam nga Ahmed Khalifa Niass du sos mm-hmm. ñëpp xam nañ ne ku sañ wax la te la mu wax rek am na fa mu ko teg kon information bi moom mooy ba ñu toogee di waxtaan plus de trois heures de temps si je comprends bien moom ak Ousmane Sonko mooy naka la ñuy def ba mu mm-hmm. jubóole ko ak Macky Sall ndax dossier Adji Sarr bi ñu mun koo teg ci suuf voilà léegi loolu nag man damay wax ne ñoom su fekkee li Ahmed Khalifa Niass ñu wax dañ ko wédd nañ ko porte plainte yóbbu ko ci yoon wala ñu génn tontu ko. jeex na. waa léegi nag ñoom loolu yëpp fekkul leen ci loolu yëpp defuñ ko léegi xam na la ñuy def nee nañ bëgg bàyyi la ñuy sosal benn kër gu mu lay woon daan tëddee ay jigéen. ñoom yooyu la ñoom ñoom fu mu gën a bonee rek fu mu gën a ci loolu lañ ne ay reggae ak yooyu ñu ne Maty day tux yamba. Maty di tux sa cigarette. waaw waaw ndeysaan ak <laughs> maa leen yërëm. léegi au lieu de du ma tux naan malheureusement pour ma bis aw moom ñun oh, ay viisu ay sud beauté comme ni ko Goudou Baye di di di tatafu ci ci guddi gi di tatafu ba yegg biir sud beauté. c'est <laughs> que mag yi au lieu que ñu tontu ma ci Ahmed Khalifa Niass bi pour génn def ci ay débat mais ña nga ca ay waa ji daa kër gu mu léewoo di tëddee ay nit rek dugg na fii di tëddee te ñoom duñ ma sa indi ku ki ma tëddee leen ki Sonko te ñoom ki Sonko tëddee mu ngi ni Adji Sarr la wax na ko ñëpp dégg ko man ñoom dañ indi ku ma tëddee nañ indi ku ma ko bëgg baay waaye nag ba nga expliqué ne ba ba mu ne sarax biir mm. suite beauté ba ba ba ko ba ñu ko xoojee ci ndox mu tàng ba ba génne ko ba ba yaram ba gajaf <laughs> non magi ñii seen diil yi dafa commencé seen diil yi commencé toj Sénégal léegi nit ñi ñoo leen commencé nand parce que ay fausse information <laughs> loolu gis nga Ahmed Khalifa Niass daal li mu wax Macky moom ci ci gàttal waaw lu am solo la pour sénégalais yi bàyyi ci xel. waaw. parce que ñu bëri bàyyiwuñu xel ne sonko dafa am lu ko jàpp su ngeen gisee mu jeex takk ay ngeen ngeen gis ko mu mel melokaan bi mu mel parce que gis nga bakkanu doomu aadama dafa. foor mag billaahi waaw mm. sonko su tëddee ak conscience am xam na ne moom moo nekkul ci dëgg moom moo poussé booy ba ñu rey booy loolu dafa nekk ci bopp bi di di jàpp ko. billaahi léegi loolu noon loolu noonu jàpp ko noonu moo tax Sonko nekkatul tranquille nit carrément Sonko nekkatul doomu aadama personnel man maa la wax li nii mhm, mhm. te li ma la li ma lay wax ni lu wér la Sonko nekkatul cent pour cent bi Sonko gis nga yow parfois da ngay def vidéo ngay wax ma xam ni yow mi am na li nga xam parce que ñun am na lu bari lu ñu xam loo xam ne genn wàll gi sax waxuñu ko ci jamais ñoo ko ci laaj pour l'instant da ngay wax ma xam ne yow xam nga fi ngay wax te fi ngay cukku noonu xam naa la mais du ma sax bu baax ndax voilà léegi nag waaw mhm. Mhm, ma léegi nag waaw léegi nag man mhm. damay bàyyiloo xel sénégalais ci Ahmed xalifa Niass li mu wax waaw te te lu jar a continuer di leeral la lu jar a déglu la parce que Ahmed Khalifa Niass li wax dafa am solo parce que Sonko fi mu ne nii bëgg na génn ci mbir mi parce que xam na ne dana ko coûter cher moo tax mu dem kër Ahmed Khalifa di ñaan njekk pour mu gisee ko Macky Sall pour dimbale ko ñoom nag nangu ñëw dégg loolu waaye loolu Sonko mu ko léegi nag ñaan njekk googu noonu nag dafa bëri ay question yu mu parce que dafa wax ay wax yu garaaw moom Sonko. ba mm-hmm. tax booy génn ci dee ci léegi bés bu demee tey jii nii. Mm-hmm. ba dëggal boppam ne moom moo def mbir mi. Mm-hmm. mbir mi tegu ci kawam léegi nan la ñuy def bakkanu doomu Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo dee ci mbir xam nga day garaw léegi nag maa ngi léegi nag man man moom maa ngi woo jeunesse bi di leen ragalloo saa su nekk di leen wax ne. Mhm. def leen attention ngeen def ndànk. Mhm. ndax wax naa ko ba sonn na politiciens yi jaruñ. Mhm. nga ciy joxe sa bakkan. jarul nga ciy rayante jarul nga ciy xuloog sa moromu jullit jarul nga ciy xuloog sa moromu dara. parce que ñoom lépp luñ def ñoom mën nañ ci xëyaat génn mais yow soo ci deeyee mënoo cee génn. dëgg la kon na jeunesse su sénégalais bi yeewu. si manipulation yi leen di def di leen dugal ci ay tuuxi duuna yoo xam ne dara jaru ko ci àdduna. macha allah man de ba ma demee ba man ba ma demee ba xam loolu. Mhm. damaa jël sama responsabilité génn ba ma génnee gis nga ñu ngi may saaga di ma tuumaal lu nekk. Mhm. Mhm. waaw waaye nag léegi léegi nag dëgg dana feeñ incha allah. li ma wax moom laa wax Amer Amer Khalifa Niass li mu wax assumé na ko. ñoom nañ dem ci Amer Khalifa Niass ñu porte ko plainte dem ak moom ci yoon jéem a leeral li Amer wax ndax dëgg la wala du dëgg. Amer xalifa Niass du soskat. waaye ragalul ragalul dara ragalul dara amul kenn ku koy ku ragal ci kaw suuf. barki yàlla na waa Pastef lépp lu mu ragal a wax. toppay jóg Ousmane Sonko ko xam. dootu ko waaw voilà na génn tontu ko na génn <laughs> tontu ko na ko loolu amul. Ahmed génnee preuve teg ci table bi. Mm-hmm. macha allah Ahmed du du ragal Ahmed Khalifa du ragal. wallahi du ragal du waxantu. du waxantu. Mm-hmm. du ragal nit mën na koo sikkee lu nekk mais moom. Mm-hmm. du question nit dafay ragal nit wala lu koy nit du jox wala lu mu kii ci nit ak yooyu no non non moom doxul ci yooyu. macha allah maa ngi lay jaajëfal bu baax. Mati ah, di rafetlu di rafetlu sa parce que ku mel ni yow ñun Sénégal dañ ko soxla. merci parce que soo fi amutoon. yaakaar naa ne dëgg ji ñuy commencé xam yëpp duñ ko xam mag merci beaucoup parce que yaa ngi leeral lu bëri Sénégal yu bëri ñu lay suivre nag di la bàyyi xel di la ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla dëgëral sa taxawaay ci kàttanu laa ilaha illallah ay waay merci beaucoup jërëjëf yow tam yàlla la yàlla aar dimbali la bu baax ah jërëjëf macha allah amiin kontaan naa trop ci bëgg baay kontaan naa ci waa Kodas kontaan naa ci euh, Françoise Hélène Gaye vraiment laa ni ma ko waxee dama lay gën di xam di la gën di respecter vraiment merci beaucoup du fond du cœur sister euh, Françoise Hélène Gaye di remercier waa Kodas ku lim juum gis naa fi ñoom Fatima gis naa fi ñoom Iba dama commencé di leen xam ku lim juum ñoom Nafi Santana ku lim juum yéen ñëpp daal waa Kodas aw ma seen fay na fi Satou yéen ñëpp daal aw ma seen fay ñoom Iba gis naa leen ci Italie ah donc vraiment kontaan naa gars yi su rek ma xamal leen benn affaire yéen mënu leen ma jaar fenn wax dara loo xam ne gis nga ñi ma xam bu baax. dañ leen di reetaan parce que man nit laa bu doylu gis nga su ma paree nii maa ngi déglu samay reggae wala di seetaan sama sama série suite temps yi moom laa jël donc ma dund sama happiness parce que bu ma toogee ba ba xubidaas ba retraité def samay croisière yu baax léeg-léeg ma ma ma jógee Sénégal def samay croisière xam nga ñan ñoo samay doom eh waay na ménopause gaaw ñëw xam nga te ménopause dafa war gaaw ñëw comme ça ma mun na di jul 30 jours yi. du ma toog ay jours yoo xam ne duma def ay salatu fàtte du may kii yooyu xam nga waaw comme ça nga xam ne jour si mois bi yëpp waaw kañ damay mën di mën a jaamu yàlla di mën di julli voilà doom nag samay doom moom mooy sama papa dafa teel a gaañu maag sama yaay yi sama yaay elle est pas trop âgée c'était comme ma grande sœur samay rakk comme samay doom ma tette leen ba yàlla def macha allah ñooy sama fierté ku ci ne yaa ngi yor sa kër yor say doom macha allah yor su liggéey ñu nekk ay nit ñu am jom di góor comme jigéen ma leen di xoole comme samay rakk ak comme samay doom seeni doom comme samay propre doom man jooyuma doom fii xol buñ ko xaree awma problème mu méttitu doom malheureusement je suis pas nan laa la ko mu a expliquer <laughs> sama life je suis bien sama biir xol je suis bien su ma amee nii tey ji su ma su bëggee ak sama diwtiir ak sama euh, euh, euh, ñankatang toog seetaan sama Netflix je suis bien mënu leen ma wax dara lu ma war a cuuj lu ma war a piqué c'est pas possible <laughs> mënul nekk donc dem na ngeen làmbi feneen na ménopause gaaw te ménopause nag xam leen ne bu dee am ngeen ay jabar wala ay rakk yu jigéen ñoom ñëpp dinañ dem màgget comme man ba ménopause ndax c'est tout à fait normal c'est la vie c'est la vie qui est comme ça ñun ñëpp dañuy màgg dañuy juddu màgg euh, euh, euh, màgget daal di dee ñun ñëpp nag ñu ñëpp bokk ni ci live bi am gen ay ya seen yaay ménopause nañu seen i mag yu jigéen ménopause nañu seen rakk yu jigéen dinañ ménopause ñoom tamit man tamit dinaa ménopause amul dara lu ci garaaw loolu c'est pas une honte c'est pas une honte pas du tout wóor na yàlla su ma paree fii man maa ngi teg su may togg maa ngi fecc et tout je suis bien yàlla maa ngi sant yàlla ba ma amee xol bu mel noonu man ma nekk di xool lu nit am nit je suis pas comme sa voilà non seulement éducation bi ma yàlla def bi ma yàlla bi ma sama parents yi jox mais en plus dama je traînais beaucoup avec les rastas je suis très rude c'est pas pour rien ma def affaire de bobo chantier yi comprendre ngeen munu leen ma dugg fenn munu leen ma jaaree fenn je suis happy kon gars sur ce maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ñun de defuñu comme Ousmane Sonko mi nga xamante ni ko bëgg bàyyi waxee xam ne bu baax lu tax mu wax ko bu tëddee du nelaw mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi faral di jeex ndax moom xam na la mu def ndax àq baaxut te dara dafa foor te ña ko jàppale ci mbir mi yëpp ñenn ñi am na ñu bëri ñoo xam ne xam nañ na mu demee waaye dañoo bëgg post ñi nga langaamu ci Ousmane Sonko parce que bëgg nañu ci wàllu politique ñu tekki dara ñoom aussi jàppale na ay complice ngeen waaye yàlla dina leeral lépp. ndax deret dafa foor ñun de amuñu vie su Sweet wax dëgg neex yàlla amuñu benn mbokk boo am na am na vie massage ak Sweet Beauté ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax gars yi kon sur ce maa ngi leen di wax euh, euh, bon début de semaine ah donc voilà di remercier bu baax a baax a baax di remercier waa CODAS di remercier les intervenants di remercier Bëgg Baay di remercier également waa waaye ñoom Khalifa ak ñoom Amady Diallo bu baax a baax ak ñoom Ngaraaf kon jàmm ak jàmm gars yi euh, ba dimanche prochain incha allah bon début de semaine. happiness rek bu leen kenn stressé bye <laughs>